nga nga nga sikkaral ba xaaral xaaral xaaral rek waa déglu rek xaaral waa xaaral waa xaaral rek bu ñu ma jox la sujet bi nga sikkaral bugaan lu tax ma koy sikkaral waa déglu ba rek bañu ma waa déglu waa déglu rek bañu ma loolu waaye léegi man su ma la laajee waa léegi su ma la laajee téléphone bi nga naan déglu waa déglu rek ma laajee téléphone bi nga ne ci chargeur ba mhm. te téléphone bee ma tax a jóg loolu su boobaa dañuy maanaam day métti ci maanaam day metti ci li may déglu yow xam kon yow déglu woo ma tey déglu naa la da nga ne Bougane dafa yërëm. waaw a a jël temps dafa yërëm ñi waa ji mburu man la wuru wuru leen a yërëm looy wut ci man man ànduma ak Bougane ci loolu waaw déedéet de looy wut ci man li nga wax man tey ànduma ak Bougane ci li mu man yow déglu maanaam di wëndeelu non non non dani looy wut ci woon ci ba dani weñ yiñ weñ loxob loxob ñi defar mburu parce que da ngay caaxaan ñooñu la jaaduwul weñ bi ñu limee ma ne ko ñooñu jëruñoo yërëm ndax ñooñu mburu mi dafa woyof waaw d'accord ànduma ak moom foofu kon léegi loolu luy problème bi su ma àndoon ak moom dama naan ko problème bi maanaam yow non ànduma ak moom kay ci affaire yi maanaam da ngay fay ba ñukk li ngay wax ah. ne ca nee na li mu wax si mburu mi kiñ weñ loxoom laa ne ko kooka jërut yërëm tëlu nañ gën a weñ loxo ba ndax mburu wa dafa woyof d'accord man kay loolu laa wax. jërëjëf maa ngi moom si loolu. su ma àndoon ak moom dama naan ko train bien bu gaan ñooñu wuru ñoo weñ seen loxo mais dama ne ko nañ gën a weñ. très bien ndax mburu ba dafa woyof te daa war a kilo mburu la. alaaji. Mm. Euh, bugaan taxawee naqarlu mburu mi mi ñu wàññi ah. Mm-hmm. mburu mi ñu wàññi lañ naqarlu wala ki ñu weñ loxo ki ki moom mburu mi. waaw mooy wàññi maanaam na ngi ni état bi weñee loxol ki moom mburu mi. non kii naqarlu xam nga lu tax ñoom duñ ci dee. Hmm. kilo boobu ñu naan kilo mburu la boo ko peesee mëtut ginnaar liibar. Hmm. Hmm? waaw mëtut ginnaar liibar kilo bi maanaam ci guddaay bi rek lañ la wax. guddaay. moo tax ñun kilo kay diisaay la war a doon. waaw du guddaay. <laughs> waaw moo tax man la yow fi nga léegi bul jël li am importance dugal ma ci man du ma nangu tey <laughs> diglu rek am na loo xam du ma ko nangu tey am na loo xam dootuma ko nangu. <laughs> nga dugal ma ci ay kilo diisaay. woyee buru ba bàyyi ko rek bàyyi ko rek léegi li ba dul nangooti mooy nga bàyyi fi l'essentiel bi naan kilo mburoog guddaay beeg diisaay te bàyyi fi wax yi dama laa sàcc ay boo deful nag yow bàyyi alaaji asan ca mayonnaise la yow yow bàyyi bàyyi rek <laughs> yaa bàyyi rek ñëwal bàyyil rek ñëwal xam nga bu njëkk sax daanaa ko bàyyi bu gée defee auditeurs ma bàyyi ko mu def li mu bëgg a def léegi nag dama lay xëcc ñëwal <laughs> ñëwal nag xam nga boo ne kilo waaw léegi la ma bàyyi la nga ba daaneel ma xëccaat la. dama ba ne kilo mburu te kilo kilo bi matut kilo. kon ñoom ñoom daanawuñ ndax dañuy tibb léegi lu leen arrangé peese. Hmm. mburu wi bu njëkk buñ la masaan indi aw mburu <laughs> bàyyi ko rek bàyyi ko bu paree ma xëccaat ko alaaj bàyyi ko. non wax dëgg. man dama ko bëgg bàyyi ba mu pare ba cité ma xëccaat indi ko. fii non damay leeral rek dama koy leeral noonu mburu mi. waaye Assane xam nga non dama koy leeral. waa diglul diglul hmm? waa ah. xaaral. dama ne. Hmm. ngay leeral. Hmm. loolu indiwuñu fi. de waxoon ni daa naqarlu mburu waaye léegi mbiru bugaan laa la laaj. bugaan laa oh, man génn ko ma dama koy leeral. mburu ci looy leeral. mburu laa koy leeral. mburu mi ni dafay naqarlu weñ bi ñu weñ loxo kii defar mburu pour wàññi ko pour wàññi ko. moom laa ne ko mburu bugaan bu njëkk mburu yi ni mu daan toll. bugaan waxul ci mburu yi ni mu daan toll de. waaw waaw. waaye dama koy leeralal. non ñëwal ci wàññi ci njëg gi. si laa nekk nii nekkoo ci de yaa ngi ci ah, mburu bu diis bi. non bi. waa dégg xam nga dama ne ki xam nga tey ji ñett dërëm yi ñu si génnee. kee ko wa dana ko wàññi dana ko defaat si poids bi. bu njëkk yow bu ñu la masaan daggal mburu yow digg bi rek da nga si daan lekk ba regg bàqata yi da koy loqarti nii di loqarti digg bi ba sa loxo di ngay loqarti ba regg nga xam ne mburu mi da ko teg noonu waaw te léegi ne bàqata amatu si léegi pare nga ci mburu mi biir gi digg bi amatu dara léegi pare nga ci point boobu fexe nañ ba wal ko non maa ngi si mburu bi <laughs> fexe nañ ba wal mburu bi ba mburu bi rey te mburu bi da nga gis ko toog wër na yàlla buñ la mayonnaise si mburu bi man ngaa lekk kilo bi buñ si defee mayonnaise wala bëri mën nga koo lekk te loolu kon kon kon loolu jaaduwut li ñu war a def mooy ñun leen mburu mi far force ñett dërëm la nañ ko see wàññi waaye poids bi daa war a tool nii ñu xam poids mburu nan lay toll mais boo demee tey ji bawal mburu ma na mi toll ak dakaar gi ni mburu wi toll nga dem Bambey ni mburu way toll nga dem Kaolack mburu yi tolloo wuñ te yëpp ki la tudd kon il faut que gouvernement bi bu mu wàññi mburu bi pare mun leen poids beet nay nangam ñu xam loolu voilà kon kon ñooñu mu xamante ni ñoo kii tey ñi nga xamante ni ñooy lakk fi koy lakke ñu kii ko mu gën a num tuddati eh, eh, amariyaane ko pour bi ndax pour bi ñoom it buñ nee ne wàññi leen dañuy woo employé yi ni leen lii la ñuy fay wala ñu daam jël ñoo xamante ni loo leen fay ñu liggéeyal la te fa la ñuy fanaan fa la ñuy def lépp loolu nag kon in faut que gouvernement bi duggaali si pour yi xool ña fay liggéey xool li ñuy fayeeku ak fanaan gañ fay fanaan ak jafe-jafe yi fay dund waaw moo gën bu ñu defee loolu ba pare nag danañ xam ba xam ñoom lii war nañ leen a yërëm wala waruñu leen a yërëm mais fi ne nii moom consommation yi si wàllu mburu ñoom dañ war a léegi boo demee di jënd mburu nii si taabal ji ay mayonnaise ak ay ñebbeeg yooyu nga di si def mburu bi cent franc lañ la koy jaayee nii élage ngi nii duma bàyyi ma fenn cent franc lañ lay jaayee liibar bi nga def si mayonnaise def si ñebbe def si petit pois nga daal si def nen baxal nga def si spaghetti daal daal di ndékki jóg dem sa yoon mburu bi cent franc lañ lay jaayee liibar bi élage ngi nii voilà côté boobu leer na. ñëw na ci ambulant yi. ambulant yi waa ambulant yi moom dañuy nekk si ay jafe-jafe nañ leen dimbali te jàppale leen niñ leen mën a jàppalee nag mooy ambulant moom mënut a ñàkk si ab si ab dëkk. par force mu am ambulant ah. mais ñu organiser ko ba nga xamante ni dana mën a organiser wu ambulant du caageenu marché marché yi mën nañ ko defar mais ambulant du mooy mooy kii wër bu circulation amee mu daal di dem hmm. nga xamante ni nit dana war a mën a doon doon wajaas kat mais fii amut ab marché te soxla naa ndox hmm. nga wàcc sa weer gis ko la jaay ndox wala nga xiif gis nga ko wàcc sa weer gis ku la jaay bonbon wala nga jënd caaf wala wala wala kon ñooñu il faut que ñu jàppale leen xool nañ ko mën a gën a defaree ba nga xamante ni moom da koo ñaawlu hmm? da koo ñaawlu. ñaaw lu mu si ñaawlu. Hmm? lu mu si ñaawlu. da koo ñaawlu nga naan la ni ñu leen def ci tabaski bi. tabaski bi non ay yi fii pater pater seen xaw ma démb dañ ko daan yàq. ambulant yi ko waaw dañu am ay jafe-jafe foofu ña ña koy ñan ña ngi leen di yëkkatee yooyu jafe-jafe yooyu xam naa loolu lay ñaawlu lañ leen di yëkkatee. d'accord mhm. ak lan loolu la. Hmm? loolu rek la. yow loolu rek nga ci bëgg a wax. jàngat naa bu pare. joxe El Hadj tuuti ci kanam bu ñu fi indeetee sujet bu laal Bougane. Hmm. damay jox El directement parce que Assane yow da ngay. caaxaan boo laal keneen nga indi jox ma directement. waaw non dama lay wax rek. waaw non non yow man man ba ñu ma nga jàngat ba ñu ma jox la kàddu gi sax nga nga nga sikkaral ba. man nga jàngat xaaral xaaral rek waaw rek xaaral